on souhaite encore et on va se battre pour ça on va se les moyens pour sa parce que j'ai l'intime conviction ñi nekk fii ku ñu nekk sa ginnaaw ànd ak yow waroo am sikki sàkk nii dangay ngay gagner élection jublu nag ci comité électoral mais li ma doon wax léegi importance am dafa war a jàngal assistance bi notamment à la presse ni Benno Bokk Yaakaar di fonctionner boobu ba tey xam ngeen ni kuy jëm élection di nga am directoire de campagne booy organiser ñun nag sunu directoire de campagne on souhaite que ça soit inclusif yomb na lool parce que responsable yi fi nekk yi yëpp koo ci tànn loo ko mënti jox mën na koo def la nga war a def sax mu defal la ko am nañu xam-xam boobu am nañu expérience bi am nañu moyen yooyu mais ni bennoo bindoo ak li ñu président jàngal mooy lu nekk waxtaan ko ñu am organisation boo xam ne teg nañ ko pour jëm ci élection bi. du defoon benn séminaire xam ngeen ni séminaire ñëpp ñu ci nekk groupe la woon nekkoon ci set bi xam naa ni moor na ci ñëwaat léegi ñu def séminaire lu am lu ñu proposé président Macky Sall rafetlu ko ku neex yàlla man rafetlu naa mais dañoo nekk ci politique ñi fi nekk teew ñëpp yor ay parti wala ay coalition kon dafay baax balaa nga ciy def lenn nga leen leen ñun kat bii ngeen ñu joxoon lii lañ ci def bu la neexee nekk candidat rek taxaw ne bon Mor Ngom dénk naa la nangam bu subaa nga ne wala diw dénk naa la nangam du loolu moom mooy defar liggéey surtout boo yore coalition boo xamante ni ni ma ko waxee léegi kilifa yi fi nekk ñu ngi ci biir. bi ñu paree ci loolu ba jubo ci dañ ko waroon a présenter maintenant à tous les responsables de la coalition Benno laaj leen ñoom luñ ci xalaat ils l'ont fait nañ ci sax léegi ay suggestions yoo xamante ni biñ ko gisee rafet na jàpp nañ ni lu war a gën a mën a baaxal document bi ñu def la te incha allah dinañ ko ci intégré bu des ñi ko war a animé nga liggéey li ci am solo moom mooy sa volonté sa volonté yow moo tax tey li ñuy an li ñu fi andi mooy pré présenté leen ko et am une méthode novatrice mooy ku nekk dañ lay wax na nga tànn fi nga bëgg a dem ni nga bëgg liggéey ñëpp xamante nañu xam nañu à peu près ku nekk fi ñu jàpp ni moom moo gën mais li gën a rafet li gën a jaadu mooy ñu laaj la ko ku moor dina ci ñëwaat léegi buñ ci paree vendredi bii di ñëw bu ci yàlla àndee ndax dafa am ay réunion hebdomadaire yu secrétariat Benno di def tous les vendredis président Moustapha Niass di ko présider buñ ci yeggee muy ajjuma bii di ñëw dinañu wax exactement nu yëf yi bindoo bu boobaa nag on entre en jeu pour faire les arbitrages équilibré parce que bu ñu gisee ni ñëpp ci benn pôle la ñu bindee jublu ñu fexe jëlee foofu ay nit yóbbu leen ci beneen pôle. loolu gën baa tardé danañ ko def samedi après on va faire maintenant un séminaire avec tout le Benno notamment le le le la la la la, la, hmm? la conférence des leaders ñoom ñëpp élargi ku gën baa tardé dinañ ko def tout juste après le congrès investiture de Benno buñ ko defee bu boobaa ku nekk di nga xam cër bi nga ci am ak ñi nga bokkal cër bi ak liggéey bi nga xam ni dinañ la ko sant nga def ko Maintenant, d'ici là, d'ici là, au plus tard, le 10 janvier bii di ñëw bëgg nañu dans toutes les communes communes yëpp monter seen comité électoraux parce que élection am na li nga xam ni day nekk xëy na au sommet bu ñu ko mënee tuddee sommet waaye liggéey bi ça se fait sur le terrain parce que bennoo c'est un parti de masse. C'est un parti c'est une coalition de masse la laa war a wax c'est une coalition boo xamante ni commune boo dugg mën na am ay sensibilité yu wuteeg commune bi mu taxalool noonu la bennoo bindoo noonu lay fonctionner boobu ba tey d'ici le 10 on va se donner les moyens avec l'ensemble des organes de Benno mais parti yëpp ku ci nekk dans la semaine nga jublu ci defar sa comité électoral du ñàkk benn commune wala ñaari commune oui va y avoir des difficultés on ne le souhaite pas mais euh, booy def moom da ngay anticiper yooyu yëpp on prendra une semaine pour régler toutes ses questions mu mëne ñu bu ci yàlla àndee vers le 15 le 17 janvier xam naa ne ci la war a def séminaire bi fekk lépp pare et bu boobaa on va lancer de manière effective et de manière déterminante le processus devant nous mener à l'élection du 25 février allah loolu mooy élément yi ma bëggoon a porter à votre connaissance ma leen di sant di leen gërëm di leen xamal ni les préoccupations que vous avez globalement yëpp bu parewul it avancé nañ ci yi nga xam ni dina dem ci élection li ci jiitu mooy programme on n'a pas pas de problème à ce niveau là am na loo xam ni ñu ngi ci ànd ak président Macky yàgg na liggéey nañ ko ba toll fii xam nañu yan jéego lañ ci war a dox ñu ngi ci ànd ak président Macky yàgg na liggéey nañ ko ba toll fii xam nañu yan jéego lañ ci war a dox pour trajectoire bi mi jël ñu mën ko accélérer lii nga xam ni tey jii jàpp nañ ni boor boobu la ñu war a gën a pousser muy tout ce qui concerne l'emploi des jeunes incha allah on va y aller de manière déterminée dans le cadre du programme que le pôle programme va prendre en charge et que nous allons mettre à votre disposition.